jërë ngeen jëf mbokki Wassare Lamb ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey nag 14 tey la 4 juillet fii ci stade arène nationale ñoo ngi fii tey jéey wooñu fi dox ci diggante ki nga xamante ne mooy Abdou Diouf ak ki nga xamante ne mooy Gris 2 waaye nag mbokk yi ma fàttali leen lamb jooju lamb ju neex la ndax dafa nekk lamb boo xamante ne mën naa ne grand corps du petit la mu toftal ñu ki nga xamante ne mooy mooy mbaytin ak jara 2 tey mbokk yi fii dina neex dina yëngu ambiance dina fi am bàkk dina fi am làmb dee fi am lépp loo xam ne am na fi rek wasaare làmb dina leen ko dëkkal ci wasaare làmb di leen dox dig daje ci kanam ak wasaare làmb jaa ngeen jëf gars yi. yi Liss Ndiago ngi noonu xalab Ndiago bi ki nga xamante ni bu jugee waa jàmm gën jóg waa Sika Mbab. mbokk yi lycée yi noonu xoolal ma xale yi mu àndal cey làmb bu ndaw andi lii nga ne lii yombul xale yaa noonu ànd liis waaw ma loolu lise waaw ee fenaa ma yi noonu beneen beneen ngi waaw waaw teg it teg waaw làmb ngi waaw mbokk yi arbitre bi sifflé na ndaw de ak boy remorque boy remorque tampon ndaw numéro 2 ñoo ngay demee wet mbokk yi boy remorque moo ñu woon ginnaaw tampon la ñu jàkkaar lool ñoom ñaar mbokk yi booy xool dañoo xaw doole ñoom ñaar tampon moo ngi nekk Ramdan boy remorque moo ngi nekk écurie booy remarque moo takk fas gu weex ci ci fas gu xonk gi ci dënd bi laaw na ko moom tampon tampon laaw na booy daw jëli ko tampon booy remarque tampon ëñ waaye booy remarque ngi wut fa mu jàpp tampon booy remarque tampon braqué na ko tampon daan na ko da ko braqué bi ko xalab ko mu jaaxaan tampon booy remarque tampon mat de yaa ngoog syndicat la nekk kooku syndicat la nekk syndicat <laughs> la nekk xoolal ma maa dee syndicat lay liggéeyee moom tampon. waaw mais ziar. a baax. waaw fi ah syndicat xam nga rek. Madi yaa ngi fi Mango ngi fi. la gars yi jaay ñëw topp ma. ci laa doon jaay sama combat. naka nga bëree ak moom. non kii dama xam ne ponkal la mais mën naa ko doole aussi man jeune la ku gis nag xañ na ni ma toll yaakaar mag laa mais xale bu ndaw laa moo tax ma bëreeg moom noonu quoi jaay ko doole daan ko. waaw oh, man nag moo waxoon ne man amoon sa kanam. non combat bi du yàgg man xam nga leneen ma ne combat bi du yàgg. bu tax dëgg boobu ma daa ko jël bu gaaw. ma ne sa ñaari combat. bi ma nekk sama cinquième combat. ñaari victoire. quatre victoire benn match nul. la moo ne sa kanam. nekk sama kanam ba ne ndigal laa soxla yëgal li Balla Gaye laa duggoon. ndigal laa bëgg a jël ñu jox ma ko ma def ko ma def ko li ma def kii. waaye koo fa ba léegi. waaw bàyyi ko ma ko de ndigal laa soxla waaw man xale laa war a dem di ñaanal sama doomu nay jara deux yàlla may ko ndam bu rëy barke Rasulullah dañoo ànd entraîné lu métti métti maa ngi koy may ko ndam bu sedd guy waaw rek bëggee sama coach yi yëpp ñoom Tafa ñoom Sow laat bàyyi ma kenn daal maa ngi bëggee gars yëpp di leen jaar sama supporter yi jaabel xolkom bàyyi ma kenn waaw sama grand gañ seen professeur gañ seen jàppale si affaire yi ba maa ngi koy seet bu baax a baax maa ngi bëggee ñëpp vraiment. Serigne Ndiaye Fosa gars yaa ngi wasaare maa leen di fay wel. sant suñu borom. na mu maa ngi raw lu bëri. yaa ci maa ngi sant looy laaxatu ñu lu xew. non laaxatu ma maa ngi nii ñëw di sama rek. waaw. mais naka parce que euh, Abdou Diouf bi fi jógee su ma juumul yow ak moom la woon mu ñëw nga ñëw tey ànd sa rakk moo war a jàkkaarloo ngeen ko àndee. niñ ko waajee daal mooy comme ni mu doon waajee mais bii da ci gën a raw ndax mbër moom am na fooy toll say yëpp mën a toll tolloo waaj na waaj bu mag préparé na combat lu raw nu mu naan pare combat bi ñooñu ñaan la yàlla suñu borom yàlla na ko yàlla suñu borom may ndam daal. mais lan mooy avantage Gris ci combat yi parce que dañuy xool ki nga xam te ne mooy Abdou Diouf bu ñu xool ci taxawaay moo ko xaw a sut lan mooy avantage Gris 2. waaw avantage am mooy ki la sut ak ki gën a gàtt ki gën a gàtt dafa doon rek loolu mooy avantage am. xeex arrangé mooy loolu mooy yoonu làmb ji. Gris xeex ak Abdou que yow di nga ko digal loolu Abdou Diouf jot ngaa laal ak moom xam nga na Diouf moom loxo yi moom téyewu ko da koy yónni muy dem. waaw mais loolu nga xam mën a digal parce que loolu mooy làmb ji loolu mooy gem bi. fan nga toll. maa bu baax. ñu gis nga dem jëliwaat revanche sa diggante ak yow ak naka ngay waajee ku la gis Ada foofu moom xam ne macha allah. waaw si yeggee yàlla may ñu dem. ah tey tey foo ko wootee tey foo ko yaa ngi ci jàmm. bu baax. de ma yàlla def ko mu am ndam tey ngeen ñëw andiwaat Gris 2 tey naka ngeen ko andee. ñu ne yàlla rek. Ah. ndam lu gaaw lu seet. est que dina yomb. ah mais lu yomb amu fi. parce que kii fi mu mujj a jógee ko daanoon Forza moo ko daanoon mu ñëwaat dugaat bi Fass est-ce que dina nangu jëlee fi ñaari yoon defet. ku tëj na beneen tëb. Ah. beneen tëb bees ah, waaw force fa Forza fan nga toll. man pare laa fi nekk allah. dégg nga tëngeej waaw mbaaw du yomb <laughs> pare leen daal li woo sumee bokk yëpp mu juróo yorof maagee waa Njaafat waa golf yi waa Ndar ak sama mbokk mariér yi sama père Oscar père Awas Ndoye xam li woo suma gars yi mu jàpp si ak père Aziz Ndiaye ñu def si baax a baax combat bi bien mais di jéegoon nag démb rek moo loolu démb lamb ñu neewoon la quoi ma déggee bi quoi ma nekk si bi quoi ñoo bokk liggéey Gris Bordeaux. le tigre de Fass. nu mu demee naka waar. ci loolee. naaj naaj. waaw ah, sëñ Gris ñaareel. Ah, waaw ma concentré wu ci làmb ji ba ci kanam. amoon bopp it leneen moo ci nekk. tranquillagul fi mu toll nii. non non Pam Doy ziar. ñu ngi delloo ziar. ci loolee. sant yàlla bu mooy bëre yaay bëre wala Gris mooy bëre. Gris Bordeaux mooy bëre. maa ngi gis nga yéen di. waaw ñaan yàlla ndam rek. Gris 2 suñu mag la suñu grand suñu lépp la combat am sama combat la comme combat la waaw di ko ñaanal ndam. bi mu fi jógee bi fi mujjee jógee ci defet lu jógee. tey naka la ñëwee. loolu asaka la woon rek dañ ñu ko génne woon ñu ni foog ñu génne ko boobu lañ ko génne mais jeex na. mais tey naka ngeen ñëwee ndax ki ngeen bëreel bi fi mujjee yéen a ko daanoon mu ñëwaat wala jëflantewaat ak yéen ñëwaatee beneen façon naka ngeen waajalee. day daanuwaat ndax dañoo waaj Fass moo ñëw te Fass moom xam nga ni bu jógee rek ndam la jël si instant bi ndam lañ jël si ndam dañ ko bëgg a dóor dañ koy dóor dóoraat. maa ngi fi ak Gris 2 Gris si ah. loo de. sant yàlla gën. am na wala. maa la raw. dama a gis si loo de. ñoo ngi nii ñoo ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi ci sant alhamdulilah. foo toll. waaw ñoo ngi ci ñoo ngi ci rek ñoo ngi ñoo ngi ñaanal Maodo yàlla may ko ndam ci barke Seydina Mouhamad. mais bi fi ñëw yéen a ko daanoon tey mu ñëwaat ngeen jëflantewaat ak moom te nee na benn anam la waat te wutoon naag bi muy bëre Forza bi fi ñëwee. waaw dara ñuy ñun yàlla moo am ndam moo ko ñun ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu ndam rek ci kàttanu Seydina Mouhamed. waaw kañ la. <laughs> bu bi jàllee ñu teg booy si bi Valérie. booy si bee noonu. booy si bi Valérie. Boy Sébi Valérie Valérie moo ñu féete à droite Boy Sébi moom la ñu jàkkaar lool de la soirée Boy Sébi Boy Sey bi Valérie xale yaa ngi lewaatoo ñoom ñaar Boy Sey bi daw na jël ko wala boog Valérie daw na jël Boy Sey bi Boy Sey bi Valérie Boy Sey bi Boy Sey bi Baye Balla Baye Balla jaar naa la yaa ci jàmm booy see bi Valérie am na loxo ci ngemb booy sebi jàpp na booy see bi fa mu jàpp baax na booy see bi mu jàpp baax na da koy tegal 16 wala lu mu koy def corof na ko taxabal ba Valérie génn na ca taxabalaat na ko booy see bi Boy Seye bi na ko 16 da cee génn wala lu def Boy Seye bi Valérie Boy Seye bi Valérie Boy Seye bi ngay dóor Boy Seye bi ngay dóor Valérie jël na tànk Boy Seye bi Valérie jël na tànk ba ko wala daanu ko ko oh Boy Thank you.

loolu man taalibe Serigne Touba la yaakaar maam si àndam Mbacke dama gis mu tuusul neex am stade bépp ñëw loolu am ci lamb kese loolu kese la am ci lamb maa ngi ñëw léegi dégal bay baale da nga mën a baat ak sa nër la mooy loolu lis nuyu ah, eh, naa deeloon daaw ziar gaan jàmm loole bi tey yee dal buy dal baax ñu gis la nga tuusul neex ànd ak sa xale yëpp ñëw tey neexee stade bi tey bi lan la laaj naas bés bi lu mu laaj mooy tekk ak xam nga yee yangaas yërëti rek waaw maa ngi tase fee ki nga xam te ne mooy Thiatou Rebeus nee na ma li ngay def nii loolu nga am ci làmb loolu laa am ci làmb ki moo ko jàppee cin tàq moo ko jàppee cin tàq cin baar ñëppay suur tey waaw a doon ngaaro baax na ba ci kanam waaw nice mais jaara jaar caara la ci loone bëgg nañ la mais li nga tuus léegi lan la ah waaw répété ko sama géwél rek papa loolu loolu ndam ci waaw tuus lu neex. xam nga li nga tuus daa neex. waaw xam naa loolu moo tax ma bàkk ko. ndeysaan. mais lan nga waajal Mbaye Tine. a ah, and ko samay waa dirigeant rek waa écurie Ramdan ak samay doom yaay ñu préparé ko fas yéene ñëw am ndam incha allah. waaw nee na ma nee na ma Diarra 2 bu ñëwee di bandi bandulu te li muy andi moomu ko nee na amuloo fit. waaw waa léegi loolu kañ jaratul wax ay am nga fi dem amoo fit loolu jaratul wax. ça reste ay eh, quelque temps ñu xam ki am fit ak ki ragal waaw amaana amaana jërë amul fit moom loolu moom ay reeraan la may jàppee bu si karamee ni ga xam ki am fit ak ki ragal. combat bi ñu gis ngeen préparé ko attaque lu teg fan nga toll ci waajaay waaw wañ naa pare naa quoi ndax deux ans et ku ko préparé combat. waaw boo parewul ñu laaj la ko quoi mais gars yi ànd naag samay samay waa Pikine ànd ak samay xarit ànd ak samay doomu ndey ñu préparé ma quoi di leen ñaanal tamit ñoom yàlla indi ndam li quoi li doon sàkku depuis boobu ba léegi yàlla indi ko te incha allah dina ko indi. waaw dina am xeex. waaw ah. dina am xeex. non mën na am la fa mu jàppuñu la ci mystique fi mu man non loolu aw ma ci yaakaar quoi. Ah. waaw mais loolu boo ko defee sax man gëw ma loolu quoi. ay taxaw naan dañ maa jàpp yooyu man yooyu góobu ma baax na bon sang. waaw incha allah. mais lak nuyu naa. waaw fay naa la sama copain. ci loolee li xeeñ neex na de. maa ni laa yow la ah, wasaare la man la di. non bu ay saafara la leen. <laughs> waaw ah. waa wasaare baax a baax. yaa ngi ci maa ci jàmm maa ci jàmm. fan yii géej waay neex na de. waaw alhamdulilah sant yàlla baax a baax. te yàlla na yàlla def mu continuer mais tey naka ngeen ñëwee ñu gis ki nga xamante ne mooy Abdou Diouf duggoon na Fass am ca defet tey mu ñëw de eh, victoire. victoire ko Abdou Diouf. diggante ma Forza. ak ah, diggante moo Gris Bordeaux. non mais bu mujj bu njëkk wala yor. ah moo daal Gris Bordeaux. waaw mu ñëw Forza daal ko bu bëgg daanaat Gris waaw mais loolu la. est-ce que tey dina yomb parce que Gris 2 dafa am ci lu mu jógee nee na sarax la woon da leen digaloon ñu génnee ko génne sarax bi jeex na. Ah, jeex na loolu la am doyoo moo ko wax fee Lac Rose euh, dëggal ma waaw maa ngi nuyu euh, Lac Rose di nuyu Pam Ndoya di nuyu waa leen la préparé nañ Abdou juuf ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla na ko yàlla may ndam. mais naka nga gisee état de forme Abdou Diouf. waaw alhamdulilah ah, ndax laale nañ contact nañ jàppal nañ ko ci lépp te li ci des nag moom mooy yàlla waaw yàlla nañu yàlla suturaal tey suturaal sama rakk Macha. yàlla may ko ndam tamit. mais dama gis Gris Bordeaux ngi fee sa combat yaak moom cinq ans six ans ñoo ngi koy dox wala boog yaa koy bëgg mënul fexe ba jël la lan nga koy wax xanaa yéen ñaar ko xaw a kii wër fii tuuti sax kan Gris Bordeaux laa la wax. te ngaa tëb foofu te wax leneen. de du ma ko tëb yow ak moom loolu bëre par force la même bu ngeen bàyyi woon sax di ngeen bëri. bu ñu bàyyi woon comme nan. bu ngeen bàyyi woon làmb sax da ngeen <laughs> par force la làmb ko bëgg. na génn ci Balla Gaye pare. na génn ci Balla Gaye ba noppi. waaw. bu ko mu boole la ci ñetti avancé ak ñetti. bu mag nga. <laughs> kan moo loon nga ne. moom nee na avance am yi mu téye nee na ñaareelu avance am yow buñ la ko joxoon doo ko jël. yow man bëriwuma Gris Bordeaux. mais lu tax bëriwul li ma sama bëgg-bëgg laa wax. sax da nga koo ragal maa mu mën la. waaw dama kaa ragal. damaa sonn. mais nag Casamance naka la mën amee ku ragal. mënu rek en tout cas li man Casamance amul ragal. amul ragal. moo Gris Bordeaux bëree pas force la. bëri force la. sa yoonu làmb leen boole. waaw wax dama wax comme te boobu noonu. wuy ma guddi yi ñu nii. boo demee wax leen roi des arènes. mais waaw mais Franc mi la Franc mi la tëkku barki dem Mbir yeeg ne la na gerte yoole ko. ah Franc. moom mi sax waaw waaw bëgg bëgg bëgg bëggam la wax. na gën a góorgóorlu rek bu mu tëb état bi bu tëbee état bi rek du baax ci moom xam nga nit mën ko ko tëkku tëkk bés boo lebee ba lekk avance am boo tëddee doo nelaw waaye na gën a góorgóorluwaat ñun bañ ñu may kenn sens xam nga bañ ñu may kenn sens mais bu tëb état bi que ñi képp koo xam na bëri naa man rek ba fekk ne am na foo toll am na loo liggéey ba toll fa ñu may la may la sens mais guddi ñu toll nii mayatuma benn xale sens mayuma benn xale sens lenn mooy sama objectif mooy lenn moom mooy bëri dox ci diggante Baba Diakhal ak René Séga Baba Diakhal moo ñu féete à gauche René Séga moo ñu féete à droite xale yi seen lewaatoo bi bar na Baba Diakhal René Séga René Séga Baba Diakhal mbokk xool moo xaw a ëpp tuuti Baba Diakhal seen lewaatoo Reni Secka ngay dóor Baba Diakhal am Diop andi Ndiaye xale yaa xeex Reni Secka Baba Diakhal ba doomu daanu du ca am xale yi dañoo ñemante Reni Secka Baba Diakhal xale yi dañoo mën a bëre waaw waaw am Diop andi Ndiaye ngoog Baba Diakhal wañ na ko léegi Baba Diakhal Reni Seckal ay ah, Baba Diakhalu dëj ma ne ko Baba Baba Diakhar Henry Séga Baba Diakhar Henry Séga Baba Diakhar la ngay dóor Baba Diakhar Henry Séga Baba Diakhar ngay dóor ci suuf xeex ba metti na ba doomu daanu du ci am ba doomu daanu laay Ady Seye Baba Diakhar am Diop Amy Ndiaye waaw lamb daal supporter da cee bokk yaa goog ñooñu ànd ak Baba Diakhar arbitre bi waat na ci diggante Baba Diakhar Ady Seye xeex nañ fi léegi ñoom ñaar xeex bu sax Baba Jaxal moo ñu woon ginnaaw ren di ñu jàkkaar lool xale yaa ci digg géew bi eh Jaxal door na léegi góos bu Jaxal ren di mbaa ñii duñu doorante daanu eh mais Baba Jaxal mi lan doomu daanu munu cee ñàkk xale yaa ngi ardo Baba Jaxal dama wala ba ren di seegal delluwaat Jaxal mii déet la fi a Oh! xoolal ma xale yi xale Baba Diakhal yaa ngi noonu sëñ Tuubaa bu wér rek di nuyu sama sëriñ Cheikh Modou Gueye di nuy waa Guédiawaye gi yëpp dañ maa indi dañ maa yeb ak doole war na ma am seerafaal ndam rek ñibbi. gis dama gis sa adversaire tuus na neex yëngal stade bi seetaan nga ko est-ce que. tuus indi ma ci lam yi xam indi. jàpp daan parce que ay ñoom xaarim dañuy ñëw jël seen xaalis jëndal ma ay oto jëndal ma ay billet xaarim mi ngi nële Seydou Salah. ma gën a na la ngay wax rek te fi yoon. moo tax nu ma yàggatul yàggatul léegi ma duma ko duma yu métti. tey bisu jëf la. bisu mhm. baax na. moo tax nag ñu am tey waa Fass yëpp dañoo ñëw ànd ak c'est normal. waaw loolu dafa leer. xam tey bés bi li waaw ah, xam nañ ko. am Diop andi Ndiaye xeex bi est-ce que dina ci baax. waaw dama ko naroon rabax rabaxee mais gars nee nañ ma ma taxaw tuuti. taxaw oh, déglu ko. waaw ma taxaw déglu ko. kon baax. lii réew noonu. waaw. boo ci kii xale Fatou baa ngi noonu. Cereke Jenkins waaw cereke cereke kes ñoom ñaar ku ci nekk am nga benn avertissement doomu jàmm Saba doomu jàmm gën yi moo ñëwoon Saba lan mu jaakaar lool. Saba Habibou sifle na doomu jàmm gën Saba doomu jàmm gën lu muy def nii Saba jël na ko Saba jël na doomu jàmm gën Saba daan na ko jël bu rëy Saba daan na ko jël bu rëy Habibou sifle ñu xeex Saba daw jëli ko. gaañ ko doomu jàmm gën ko plaqué Saba déclenché ko doo ko tànk wala boog doo ko ans laay la daan na ko jël bu doomu jàmm gën noonu fair play waaw la lamb noonu la <laughs> waaw mais nii la ko yàlla doole. xam naa ne kenn ki dala bëggoon a waaxu. waaw non la demee parce que moom loolu lañ ko wax. loolu lañ ko ko wax. Mhm. ñooñu nga jéem koo. mais lan moo rek bali tax. waaw parce que man man moom attaque man xaw ma arrière. mais jëli bi man kenn gisagu sama bëre. man bëreegu ma Siteu billahi wallahi. bëreegu ma Saba. bëreegu ma Saba ma Siteu bëreegu ma. su ma jotee si ñi ma war a jot. yan nga war a jot. Ah, yan nga war a bëri. pare nga jàmm gën wala yaa ngi biir jàmm gën ba tey. mais moo tallul fu may asaaloo suma xam-xam stade bi sax bu ma ci duggee damay fay man sëtu Yoro Jaw laa permettre ma benn promoteur mu may yeb mbër du ma yeb fa ma toogoon moom mënoon na ma fa bàyyi mais bu ma fekkee ci tribune bi. ni ma wàccal wàccu ma dafay mel dama ko yéene leneen waaye sa di combat bi dina 15 jours la ñu waroon liggéey su góor góorgóorloo moom Abdou Diouf li may wax nag dafa intéressant bu góor bañ a mer bàyyi ko combat bi xeex ak arrêt jël temps am mën na ko daan ndax moo expérience mais bu meree. ñu daw daje ci ñu mu gën a gaawee gisuma foofu bëre bi. Abdou Diouf nuyu. fay naa ci loolee. sant rek. da nga da nga da nga concentré wu ci làmb ji ba ëpp lan la. tey waa Guèye waa ma jàppale tey ju waruma. match yi noonu écurie Waalo toujours prêt écurie Yoff Baldé moo ñu wan ginnaaw toujours boog Mathieu moo ñu féete ndeyjoor toujours pare moo ñu xale yaa ngi noonu Mathieu toujours pare Mathieu na jël ko boo oh, Mathieu daan na ko vite fait bien fait vite fait bien fait Mathieu ngi noonu bas nañu dem jamono ji fu ñu toll nii lii sa ngi noonu yenu xaal ba baadu ko toj xaal ba lan la cay def lii sa ngi noonu abi baa ngi boog Thiatou Rebeuss ëlbatil li nga takk sa bopp ba Liss am na lu mu teg maa ngi fi ak Abu Abu ci diggante Liss Ndiago ak Thiatou Rebeus boo xoolee combat wu xale la ñoom ñaar combat bi ku nekk am na fu mu la war a mën a yóbbu képp ku ci daan rek di nga sànni karawaas daw dabi ci say moroom parce que boo xoolee booy ak Mañi Kayre ak Jacob Balde ñoo di gën a pare ci lamb mais Jacob Balde ak Mañi Kayre ñoo xam war a tuuti ci lamb parce que ñu ñaar ñëpp dañu amoon ay défis yu leen gàllankoor mais combat bu bu nar a neex a ngi mbokk yi gis ngeen Thiatou Rebeuss moo ñu wan ginnaaw ngeen boo ngeen mulu jaune li Liss Ndiago la ñu jàkkaar lool Liss a ngi noonu Liss Thiatou Rebeuss mbokk yi combat espoir la xale yaa noonu ci digg géew ñoom ñaar seen signature ba xas-xas loo nañu ku ci nekk wax jox sa morom Liss Thiatou Rebeuss Liss Ndiago à gauche Thiatou Rebeuss à di demee Caatu Robassa ngay demee waaye Liss cokkaas na waaye dalul eh Liss daw na Caatu Robassa daw na jël Liss Ndiago Caatu Robassa jël na ngay door ci suuf wala boog Liss Ndiago ngay door Caatu añ na ko Liss ci ñaari tànkam xale yaa ngi noonu abit bi na lu mu wax. Liss Ndiago Thiatou Rebeus xale yaa noonu xolom mbokk doon yuuxu ku ci nekk yaa ngi ne tek di seedaan ay xale lañu waaye xale yu am Liss Ndiago Thiatou Rebeuss Liss door na léegi Thiat si giwaat Thiatou na ko Liss Ndiago Thiatou Rebeuss waaye Thiat moo ngi ne tekk di ko déglu Liss a ngi doon ci suuf Liss Ndiago Thiatou Rebeuss Liss Liss Thiatou Rebeuss Liss Ndiago mooy féete à gauche Thiatou Rebeuss féete nu à droite eh Thiatou Rebeuss fàq na ko Thiatou Rebeuss fàq na ko Liss tàq na ko Liss tàq na ko mbot na ko laay xale yaa ngay bëre oh daan na ko wala daanu ko ko Liss Ndiago daan na Thiatou Rebeuss Liss Ndiago daan na Thiatou Rebeuss oh xale yi bëre nañu. Thiatou Rebeus n'a pas démérité lii segi noonu bas nañ dem lii noonu di ko andee ci ay supporters am bàyyi ko lamb noonu la Thiatou Rebeus jële bi da koo bett Thiatou ngi noonu lamb la Thiatou Rebeus daanu milliard Ah, yaa ngi dégg yow yaa bëri mbir jàmm man maa fa gën a nekk mbër bu ndaw mbër yëpp jàmm laa lay yële te moo seen ñu bañ am jàmm. yee ñoo ci combat bi ñoo ci combat bi. combat bi nii maanaam bu ma leen dégg lan laa la waxoon kii bu ma jàppee ñu ma war a bëreel nekkul booy. bi mu doon esaat bi suur noonu. Eh, era ci tàq boo dañuy réer ba suur. mais mais boo liis. di bëggee Siro di ñaanal Siro yàlla ko yàlla may ndam. di ñaan di ñaanal Siro yàlla ko yàlla may ndam. alhamdulilah combat la xam nga da koy combat Siro suñ combat la ñun ñëpp. ñun jàmm nga ñu nga teg sa bët yaa ngi dégg Gamboor waa na ñëw mu bëri ngóob na Balla Gaye ñëw ma daan Balla Gaye ci loxo deux dox ci diggante Mbaye Tine ak Diarra 2 Mbaye Tine moo ñëwoon ginnaaw Diarra jaakaar lool Diarra 2 mbokk yi nekk écurie Ramdan may Mbaye Tine nekk Mbaye Tine moo ñu woon ginnaaw la nu lool xale yaa noonu ci digg géew bi combat spécial bi Diarra cokkaas na léegi waaye dalul il est 19h dix il lewaatoo noonu ba mu yàgg Mbaye Tine dagg lewaatoo demee wet jëlee noonu ko fixé lewaatoo bi bar Mbaye Tine gën naa wàcc moom Mbaye Tine jëlee de maa ngi nuyu Baye Djili moo ngi foofu ci ba maa Diop Assane Ndiaye foo woote dox ci diggante Mbaye Gouy Gui ak ki nga xamante mooy Mame Balla Ziza Petit Niang Dakar Gakou Calcio Parisien waaye mbokk yi mbay kii a ngi noonu mbayti na ngi noonu ak Diarra 2 mbaytin gannaaw waa ci tolloog moom sax booy xool mbokk yi ki nga xamante ni mbaytin moo xaw a sutur kii di Diarra 2 wàcc ba tolloog moom Mbaye Tine Dieng 2 Koofan jogagul song amagul Mbaye Tine dagg na lewaatoo bi andiwaat ko ci suuf moom Mbaye Tine raay ko ca loxo ya waa Dieng 2 di ko xool Mbaye Tine Dieng 2 Mbaye Tine ku bëgg a xeex moom. Diarra 2 am na lu mu ko wax Diarra 2 cokkaas na léegi waaye dañoo soriantoo Mbaye Tine Diarra 2 Diarra 2 daa mel ni ku bëgg a dem waaye booy dem na la leer Mbaye loxoy da koy yónni lu ko digal loolu lay def Diarra 2 booy dem na la leer Diarra 2 daa mel ni ku a dem ci tànku Mbaye Tine waaw Mbaye Tine daa mel daa dégg sama wax de wàcc na ci waaw Mbaye Tine jaxe de cokkaas na léegi waaye dalul jaxe de moo ne teg boo xoolee jaxe de taxawaay ba waaye gardu gardu jaxe de wàcc na naa ne bu Mbaye Tine waaw Habib atana dafay wax ak ñoom ndax waatoo bi yàgg abi bi sifle na Mbaye Tine Dieng 2 Mbaye Tine moo ñu war ginnaaw Dieng 2 lool Mbaye Tine Dieng 2 Mbaye Tine wàcc daa bëgg a dem buntu Mbaye Tine Dieng de Kupa congo amagul Mbaye Tine day lewaatoo ba mu neex mu dagg lewaatoo bi waa Dieng de il est serré Mbaye Tine day bañ xam na ne bu loxoom jógee Dieng doo juwaat loog moom. moo tax fi mu toll nii daa wàcc ba tolloog moom di lewaatoo Mbaye Tine na Dia punkal la punkal xajub ci biel loolu du dëgg ci Dia 2 xeex boobu muy xeex du dëgg ci moom da koo bëgg waaye Mbaye dafa mel ni moo ngi koy jege njort naa ne daal waaw boo taxawee xeex bi sax de am doom andi njaay ba dama koy bañ waaye bu ngeen taxawee da ngeen ko jëflante ba mu ma saf waaw. Jardin fudd léegi oh Mbaye Tine léegi Mbaye Tine Jardin Mbaye baay bi sifle ak léegi bëri nañ cinq ñoom ñaar bëri nañu cinq minutes waaye congooguñu dóoroguñu dañuy lewaatoo bam neex lañ dàq ko mbaytin taw na jël jaradë jaradë kor na ko mbaytin jàpp na mbaytin jaradë Mbaye Tine lewaatoo na moom ne xamu daw jël Diarra 2 Diarra 2 ngay rasu cokaas doon na léegi ci suuf Diarra 2 ngay rasu Diarra 2 waaye mbokk yi Diarra 2 jàppul am na benn loxoom ci ngemb day xeex Diarra 2 Mbaye Tine Mbaye Tine da nga koy puus Mbaye Tine moo ñëwoon ginnaaw ñoo ngi jàppante ndengeñ ku nekk ngay déglu moromam jaadoo nga cokkal moo ngay dóor sàmmal say tànk génn géew dellu si Diarra 2 am na lu muy defaat ca ngemb nga abit sif la na Mbaye Tine moo ñu woon la nu jaakaar lool Diarra Ramdan Mbaye Tine écurie Mor Fadam Jean 2 Mbaye Tine Jean 2 cokkaas na léegi waaye dalul door na léegi waaye dalul bëri nañu sept minutes Jean 2 ngay accéléré Mbaye Tine Dieu de Mbaye jege antoon nañu ñoom ñaar Mbaye Tine sëgg na bu suuf del siwaat Mbaye Tine Diarra 2 Mbaye Tine à gauche Jaga Dóor Dóor na léegi cokkaasaat na waaye dalul Mbaye Tine Jaga Dóor Mbaye Tine Diarra 2 baa ngay bëgg a yàgg bëre nañu neuf minutes ñoo ngay xeex léegi am Diop joxañ Njaay am Diop joxañ Njaay Mbaye Tine ngi dox ci kawam ñoo ngay xeex mbaa duñ ci dóor kenn mu daanu Mbaye Tine li woo ko njëkkee woon na ni na ko taxawal Mbaye Tine Diarra 2 Mbaye Tine ko waaw Mbaye Tine jël na Diarra 2 ko dafa xeex ak moom daw di bëgg suuf daan ko Mbaye daan na Diarra 2 Mbaye daan na ko waaw Mbaye Tine ngi noonu daw na dem ca loos ba Mama Diop nuyu doom day maa lay fay. ci maa ngi sant yàlla bu baax waay. mais lan ngay waaj. waaw maa ngi laaj waaj jeudi quoi. maa ngi waaj jeudi journée bu rëy fii arène nationale quoi. ci diggante kan ak kan. Ablaye Diop ak Pika Ablaye Diop bu Yoff ak Pika boo seq. ak Pika waaw di ak diggante Boy Pire Farou Jar. ñoom laay waaj si combat spécial bi di rendre hommage Père Balla Gaye Mama Ba Gora Seck Mor Fadam ñoom ñaa rendre hommage si diggante Boy Pire Farou Jar. loolu loolu initiative bu rafet la nu nga nga xalaatee loolu. waaw ah, mais xam a ñun ay doom banlieue lañ te yaakaar naa man damaa bokk waalo ñoom ban génnee àdduna ba léegi boo xoolee ñoom dana bokk si làmb mais kenn du leen fàttaliku man nag ma ne comme que dugg naa si si si dëpp bi sama première journée daan rendre hommage. loolu donc moo a loolu quoi di jox rendez-vous ñëpp fii jeudi incha allah rabi le huit am ja production si combat bu rëy Ablaye Diop ak Pika bu Zap fii si arène nationale di woo ñëpp amateurs yeeg ñëpp maa ngi leen di woo di woo journaliste yëpp ñu ñëw accompagner jàpp ñoo si bis bi ndax mu neex quoi si barke yonent bi. gannaaw gannaaw boo ñëwee ci loolu ci benn nga yem wala sa xel ci yeneen. non ren dinaa def trois journées mois de août maa ngi mois de maa ngi ñëwaat trois journées bëgg naa ko si kattanu ah di la ñaan di la wax nga yegg si jàmm ak salaam rek. jërëjëf di kontaan si yéen di wax di kontaan sama doom ndey audio bu ma defal voix bu ma defal wax dëgg yàlla mu ngi toj Sénégal publicité bi mu ngi toj senegal moo fi nekk kenn du moom. daanaan la non kenn du moom moo fi ne moom la. danga sonn ah an sama yoon copain bi an sama yoon copain bi fu mu dem yow foo ñibbi soo dem looy jël soo dem looy jël oto ñaara nga yow nga paas ñaara moom sëriñ bi Babacar moom sëriñ la njaboot waaye man ma warul def entraînement di toog def année balance ñun waruñoo def année balance dama war a bëre dañ ma jox am dañ ma jox combat ma bëre dama war a bëre bëre laa war rideau ngi noonu am na loolu ko jox ku dóor mu sotti ko ca kanam ga moo koy diwoo fi mu toll ni moo ci dernier bu teeli moom giri ñaari mbër yaa ngi noonu ci digg géew bi ngir de am na la muy wax Abdou Diouf noppi na bu yàgg Abdou Diouf noppi na bu yàgg ngir de am na lu ñu sëngoor buñ jël di ko dugal ci fi ngemb la nee na Abdou Diouf kaa ci digg géew bi Abdou Diouf a ngi taxaw ca boog ba tàllal ñaari loxo ya am na la muy jàpp pare na wàcc na wax ak ñoom nangu ak li bañ wax na ak arbitre sifflé na Gris 2 moo ñu woon ginnaaw Abdou Diouf la ñu jàkkaar lool Gris 2 ci kawam il est vingt cinq trois juillet journée jeey mbokk yi moom la ñu jàkkaarloo Gris 2 moo ñu woon ginnaaw Abdou door na ko léegi Abdou Diouf daw na jàppante Abdou Diouf Gris 2 oh Gris añ na ko caxabal caxabal na ko daan na ko waaw añ na ko kal ko paxal caxabal ko mu daanu nee na man la na daan na ko vite fait bien fait oh ba làmb xale làmb xale parce que ñu dem C'est bon, là, c'est bon. C'est bon, là, c'est bon. prend le drapeau. Vas-y, vas-y. Leader, lu tax combat bi gaaw. non ñuy man du ma seen morom. les erreurs la woon rek. mais ku xam géej gi xam ne. xajul si lii du dara. lii du combat ci man. benn defet boobu sarax la.